ñu wéyal njàngum xasida bi ba bu ñu xeewloo ba noppi rek kenn ku nekk daal di mën a delleek ci ay yitteem euh, fas ñoo génne loolu alxuraan xasida tudd yàlla benn jataay boo xam ne dañ ko nangu kenn di ko fi def di wax ci leneen lu bokk dëgg du jëm ci alxuraan ak xasida fas ñu yéene mukk képp ku fi ñëw di ko fi gis ndax moom ku xam doxalinam xam ne lépp lu mu daan def farata rek la ci daan doxee bu jàllee moom moom mi ngi ci leneen loolu nag incha allah rabbi ñun ñi nga xam ne ñooy ak njabootam euh, nekk ci bi te di ko ci ñaanal Euh, moom yaakaar naa ni loolu foofu lañ fas yéene teg suñu tànk waaw incha yi moom euh, mën naa ni metti na méttiwul ndax jàmbaari Sëñ Tuubaa la joo xam ne nii bu ñu sañoon di nekk moom di ko gis ba faaw waaye xam nga suñu borom moom euh, kenn du xëccoog moom te moo yor ay dogalam te kullu nafsin saa'iqatul mawti gis nañ suñu sang yu tedd yu baax yoo xam ni gisatuñ leen kon buñ ko gisatu dañuy wakkilu ci yàlla rek te tey sant yàlla tey tudd yàlla te xam ni ñun ñàkk gi ñu ko ñàkk gis wax dëgg yàlla mën naa mën naa ne métti na méttiwul ndax tàggat nañu ci ci ci ci ci tàggat nañu tàggat goo xam ni buñ ko gisutut mën nañoo bañ a jaaxle ndax ci ci ci ni mu ñu yare yaree wuñu ñu mel ni kuy nekk ak suñu baay wala ñu mel ni kuy nekk ak suñuy waajuru jigéen ndax yakaar naa ne ñun yaakaar naa fii kër gi moom li ko daan booleeg nit muy mën a nekk ci biir këram nga dem ba denc soxna te am na ci ñoo xam ne sax denc nañ soxna taxul ñu nekk ak ci biir këram bi ci biir daara ji lañ daan nekk fi nga xam ne fa la ñëpp baaxoo di nekk daanaka bu demee ba mu mun munta ñàkk ba mu sës fi la lay doog a nangu ngay mën di nekk ak moom ci biir këram kon nag waajtaay woowu ak tàggat boobu moom eh, tax na ba bi ñu demee ba gisatuñ ko ci ni mu ñu noonu rek ci lañ wéyee di ko doxee moo tax am na ci loo xam ne moom eh, mun naa bañ a métti ci suñu wet waaw waaw moom sant rek eh, te xam ni moom nii ngeen ñu fekkee ni daal ci lañ fas yéene ñaan gi nag du ñu ko àppal ni bis bi mu fi bàyyi ko woon rek ci la ñu koy ñaanal fas nañu yéene daal fu ñu mën a ne euh, di ko fàttaliku te di ko ñaanal ndax loolu lañ ko mën a ndax wax naa ko léegi rek nee naa leen maa ngi démb rek maa ngi koy waxaat ci benn kii nee naa leen ñun ak njabootam rek bu ñu xëyoon tas benn kaamil mën nañ koo jàng euh, bu dee ci góor ñi ak ci jigéen ñi ndax ba jàng jotee yóbbu nañu ci xelkom ñu dem jàngi ñëwaat muy góor di jigéen bu dee ci njàngum xasida it mën nañoo def ab kuréel boo xam ne dañ ñaan kuréel gi njaboot ak suñu aatu la kenn duñu rax